Euh, professeur Pape Demba Sy ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. Euh, yaa di coordinateur comité national euh, de pilotage des assises de la gauche plurielle. waaw. waaw tey ñuy wax gauche plurielle lan mooy gauche plurielle ak yan parti ñoo tënk li nga xam ne moo di gauche plurielle fii ci Sénégal. ah jërëjëf gauche plurielle biñ koy wax dafay wane ni gauche yi dañu bare Sénégal. parce que soo xoolee depuis euh, bi ñu amee indépendance ba léegi mm-hmm. am na ay gauche yoo xam ne socialiste lañu ñoom d'ailleurs ki dirigé nañu pays bi mm-hmm. ba mille neuf cent quatre-vingt euh, <laughs> ba mille neuf cent plutôt ba le deux mille ensuite euh, am na gauche communiste amoon na ay gauche nationaliste ñuy fàttaliku PAI il faut nag Majmut Diop fàttaliku gauche nationaliste ñoo Cheikh Anta Diop ñu ngi foon fàttaliku aussi les Mamadou Dia ñëpp ñu ngi foon donc gauche bi dafa pare woon mm-hmm. dispersé. et mm-hmm. dispersion bi continuer ba léegi. mu continuer ba léegi nag ñu xool mbir mi ni war nañ fexe ba dispersion boobu tasaaro boobu. ñu mën a ko ñu mën ko fànq que nit ñi nit ñi mën a delloo doon benn ba pare mën a euh, booloo manko bennoo mm-hmm. donc loolu lañu bëgg si gauche pluriel bi et gauche bi nag pluriel ñi si nekk mooy ñëpp ñi nga xam ni dañuy wax ni gauche la bokk muy communiste yi si la ñu bokk muy euh, socialiste yi si la ñu bokk muy euh, nationaliste yi si la ñu bokk écologiste yi si la ñu bokk panafricaniste yi tamit si la bokk ñoo ñëpp ñoo dajaloo bi ñu jëkkee def benn réunion ñun ñu d'accord ni war nañu dem def assise de la gauche waxtaan suñu biir pour mën a euh, retrouver wu ñu mën a dajaloo doonaat benn mhm. ou doon benn mhm. donc loolu mooy euh, bi mooy ñi ma tudd lim yëpp mhm. moo tax ñu tuddee ko pluriel alors ñaareel bi mooy ñi nga xam ne ñoo bokk mooy euh, courant yëpp ñi xam ne ñoom la naan wax gauche historique ñu ngi si muy PAI muy PIT muy LD muy AJ Euh, PADS authentique mhm. AJ euh, ànd jëriñ Sénégal ñoom ñëpp ñu ngi si biir ñoox socialiste yi aussi ñu ngi si biir muy PS mi ngi si biir AFP mi ngi si biir RSD bu Sagna mi ngi si biir URD bu Djiboka euh, mi ngi si biir te jegaan seen di ko diriger léegi voilà ay parti yu mel na MSU nga xam ne Mamadou Dia moo ko créé woon ñu ngi si biir PPS bi nga xam ne Omar Wane moo ko créé woon ñu ngi si biir et cetera donc pour dire daal que am nañu fanweeri parti ak juróom mhm. yoo xam ni ànd nañu si euh, li nga xam ni moom la ñuy def te bëgg nañu ñu créer li ñuy wax benn kuréel bu rëy boo xam ni dafay fexe ba dajale ñun ñi ñëpp te kuréel boobu nag li mu bëgg mooy réew mi mu mën si dox li nga xam ne war na ko dox et su fekkee ni yàlla tudd na ko mu jël réew mi loolu mooy li nga xam ni moom la gauche plurielle bi euh, doon et loolu la nam ma d'accord euh, professeur yéen euh, ngeen di waajal li nga xam ne moo di assise de la gauche plurielle ngeen war ko amal samedi bi ak ak dimanche lan ngeen jublu ci assise yooyu la waaw commencé woon naa wax léegi sax li xam ne moom lañ ci jublu mooy fexe ba ñu si français réaliser unité mooy ñu fexe ba doonaat benn. Mhm. mooy li jëkk ñaareel bi ñu fexe ba taxawal benn kuréel boo xam ne ñun ñëpp ñoo siy bokk et te kuréel boobu li nga xam ne moom la bëgg mooy li nga xam ne moo xew si réew mi ñun ñu mën si participer ni mu waree parce que gauche bi nag dafa am loo xam ne war na ko yàgg na di xeex pour réew mi am na ñu bari ñoo xam ni ñàkk nañ seen bakkan dugg nañu kasso et tout cela et toll nañu moment boo xam ne nag gauche bi war na wane boppam. Mm-hmm. donc dañu bëgg gauche bi wane boppam moo tax ñu ni il faut que nañu créer organisation bi. amaguñu amagul tour et tout ça suñu waxtaanee nag lañ koy créer parce que li may li ma lay wax ni yëpp mooy li nga dañ ko war a waxtaanee mm-hmm. et suñ ko waxtaanee suba ak gannaaw suba xam naa ne dana am loo loo xam dina si génn mm-hmm. bi si mooy loolu aussi dafa ñun te dañu bëgg n'est-ce su fekkee ni <laughs> suñu taxawaay dëgër na n'est-ce pas dem wuti nguur gi wuti nguur gi te kooku nag moom du loo xam ne danga naan tey la wala suba la mm-hmm. nga naan loolu laa bëgg loolu laa bëgg loolu mooy li nga xam ni moom la ñu bëgg et moom la ñu nar a waxtaane si euh, euh, assises Euh, ñu ngi euh, daanaka juróom ñaari weer a des ñu jëm ci élection présidentielle euh, yéen yéen a ngi amal seen assise ndax yéen a ngi xalaat am benn candidat bi nga xam ne mooy représenter la gauche plurielle. waa loolu nag mënuma si tontu léegi. Mhm. il faut que ñu xaar ba assises yi daje. Mhm. ba nit ñuy waxtaan parce que ñun gauche li ñuy fonctionner mooy dañuy waxtaan lépp dañ koy waxtaanee. ah comme dañ li li ñuy wax mooy li ñu nañu ko def boo gis nañu ko wax moo koy jiitu donc nañu waxtaan loolu et si assises yi am nañu am na benn kuréel bu ndaw boo xam ne loolu lañ ko jagleel mm-hmm. li muy waxtaan yëpp mooy nekk nekk dëkk bi ak taxawaayu gauche bi ak élection yi di ñëw et ñooñu xam naa suñu waxtaanee dinañ ñu indil seen i xalaat et na xalaat bi ñuy xool su fekkee ni nii la jëm ñu xam su fekkee ni la jëm lu xam ne pour le moment mënaguñu wax ni nii la ñuy jëm wala nii nee nee nee la jëm mais li am solo rek mooy nañu ko waxtaanee ba d'accord si. voilà. Mhm. Euh, depuis Senghor yéen gauche dirigé ngeen Sénégal daanaka euh, depuis quarante ans. Euh, waaye mu mel nii kenn déggatu leen te pourtant saay boo leen waxee rek àdduna si yëpp dina leen dégg ndax la ngeen amoon ba léegi yéen a ngi koy am ba léegi lan moo waral lool lu tax gauche bi léegi mu mel nii dafa dafa am lu wàññeeku waaw loolu li li nga wax parce que gauche bi lu tax chaque fois su waxee ñu déglu ko parce que ñi si nekk dafa am si ay euh, kii valeur yu ñu tënku ah, valeur yi valeuru booloo la valeuru bokk la valeur la yoo xam ne dañuy seet néew ju delloo ñi fu ñu toll ñu xeex pour ñoom fe seet lépp lu ñu mën a def pour aar sénégalais yi def lépp loo xam ne mën nañu ko def pour xeex bépp nooteel si euh, dëkk bi loolu moo tax chaque fois su gauche waxee ñu déglu leen et loolu la ñuy continuer di def wax nga dëgg nag am nañu benn gauche du woon ñëpp nag am na <laughs> genn wàllu gauche boo xam ni dirigé nañu pays pendant quarante ans muy socialiste yi mm-hmm. voilà bi mu fa nekkee sax am yeneen gauche yu leen doon xeex mais après bi alternance deux mille amee parti yooyu après dañu retrouver wu xam nga ñoom ñoo nekkoon euh, si Front Siggil Sénégal nekk si assise national yi nekk si Benno Siggil euh, Sénégal mais mm, opposition la ñu nekkoon nekkatuñu woon au pouvoir parce que ñenn yi dañu gunge tuuti pouvoir libéral Ablaye Wade après Ablaye Wade génn leen benn par benn voilà ba ñu nekk ñoom ñëpp pratiquement dans l' opposition mm. bi ñu bi ñu xeexee ba euh, Macky Sall participer nañu si euh, yenn gouvernement yi am nañ yenn poste wante du li nga xam ne mooy poste yi nga xam ne yaay dogal lu yaay dogal et loolu nag mooy li nga xam ni moom mooy wàññeeku si liggéey gauche bi ba nga xam ni liggéey bi nga xam ne gauche bi daf ko doon def muy di waxtaan ak population yi surtout muy di tàggat xale yi ak ndaw yi pour que ñu xam lan mooy politique lan moo leen war mm-hmm. loolu amatul woon bi nga xam ni moom li nga xam ne mën nañ si yokk mooy que gauche boobu bi mu demee au pouvoir dafa commencé di sore population yi xamatul woon lan mooy seen euh, jàmbat lan mooy seeni problème ba tax gauche bi commencé di am loo xam ne ni wàññeeku si ñoom. Mm. loolu nag la ñu gis moo tax ñu ni nañu fexee ba loolu ñu euh, <laughs> jubbanti ko ah delloo si ko li eh, xam ne moom la war a def mooy gauche bi war a jouer nga xam ni moom la war a euh, jouer si Sénégal gi mhm. mooy fexe ba lépp loo xam ni ñu ngi koy doxal si Sénégal gauche bi mën ko fekke mën si wax xalaatam te xalaatam nit ñi mën ko mën a dégg loolu mooy euh, <coughs> tontu bi ma la bëgg tontu mhm. si mbir moomu mhm. mais nag li nga xam ni moom lañ ko bëgg defee mooy dañ bëgg gauche bi nekk gauche bu bees mën li nga xam ne moom lañ doon def bu yàgg xam na ni am na àppam am na tub tubin boobu <laughs> mënatuñ ko dépasser léegi leneen la ñuy def mhm. moom mooy gauche pluriel bi nga xam ni dañuy fexe ba intelligence mooy xalaat yu baax yi nga xam ne yëpp dañ ko dajale si gauche bi mhm. ñu boole ko pour mën a fexe ba Sénégal jëm kanam. d'accord ci benn wet ga dafa mel ni yéen da ngeen bàyyi woon libéro yi ñu daal di imposer seen bopp. waaw loolu mooy li ma doon wax léegi moo ko waral parce que bi socialiste yi daanoo voilà euh, et d'ailleurs comme ni ma la ko waxee am na ñenn si gauche yoo xam ne dañu li allié woon ak libéraux yi pour daaneel socialiste yi alors li xewoon mooy socialiste dañ nekk o à l'opposition ñenn ñi nga xam ni ñoo participé woon au pouvoir amuñoon doole bi nga xam ni mënoon nañu <coughs> dékku libéraux yi d'ailleurs première alternance bi alter kii Ablaye Wade dafa commencé leen génne benn par benn pays ci la jëkk LD et agi moo si desoon ba à un moment donné ñoom ñëpp ñu génn donc amatuñu woon doole boobu moo ta taxoon ñu dugg Benno Siggil Sénégal et Benno Siggil Sénégal gis nga li mu def hmm. dem na ba euh, alternance ça veut dire que gauche bi xëy na amul woon doole boobu mais fex alternance yi fa am yëpp sudul woon gauche bi du am muy 2000 muy 2012 sudul woon gauche bi du am loolu tax la gauche mënatuñu nekk fii rek di def alternance pour ñeneen li ñu war a def nag mooy fexe ba suy alternance di am mu nekk ñun loolu mooy li nga xam ni moom euh, la bëggoon euh, surtout euh, gën a clarifier si question bi parce que li nga wax dëgg la gauche bi doo wàññeeku na mais léegi dañu bëgg defaraat beneen gauche bu bees mm-hmm. boo xam ni dana en tout cas jël nguur gi voilà. d' accord euh, professeur ndax euh, d' accord nga ñu delloo siwaat li nga xam ne moo di courant politique yi euh, ndax ñu euh, éviter li nga xam ne coalition yi nga xam ne ñoom élection rek moo leen tax a jug bu élection ba jàllee day daal di tas. waaw loolu loolu man mënuma si d' accord parce que courant politique dafay tënk nit ñi et souvent. courant yi du nekk loo xam ni dafay euh, dëppoo ak li am euh, maa ngi fàttaliku bi fi président Senghor indi euh, loi des trois courants après mu nekk quatre am na parti yoo xam ne gisuñu ko si seen bopp par exemple kii PA yi dañ leen wax parti léniniste ou communiste te ñoom tuddewuñu woon loolu seen bopp PDS dafa ne woon parti socialiste travailliste la dafa obligé jël étiquette libérale bi pour mën a exister d'accord tu vois donc RND bi nga xam ne à l'époque ñi ko créé woon reconnaître ñu ko woon sax moom gisuloon boppam si ñetti courant yooyu mhm. donc pour dire que courant yooyu soo ko indee tamit du dëppoo a li nga xam ne moom moo am te ndox dafay tënk nit ñi loolu je pense baaxul li li li ñu war a def mooy fexe ba parti bañ a yam rek si ay Euh, coalition électorale mhm. waaw ba pare ñëw am ay coalition politique yu dëgër mhm. yoo xam ni dañuy mën a euh, participer si liggéeyu réew mi soo nekkee si nguur gi wala soo nekkul si nguur gi tamit nga mën a liggéey pour euh, réew mi yooyu moom dañ koy tabax mhm. te ñun acteurs yi ñun ñoo ko mën a tabax lool doo ko mën a tabax te lool il faut acteurs yi toog di waxtaan te di seet euh, nan lay euh, demee mais euh, delloo si waat loi des trois courants ay problème rek la nar a indi surtout jamono ji ñu toll. Mhm. voilà d'accord euh, professeur Pape Demba Sy ñu ngi lay sant di la gërëm. waaw maa ngi leen di sant leen gërëm. waaw di fàttali yaa di coordonnateur comité national de pilotage des assises de la gauche.